société nationale d'électricité bu moo leen di may seen revue de presse dal leen ak jàmm yeewi askan wi ak taxaw Sénégal bu doon sëy tas na ubbil journal bii di réew mi quotidien diggante bu tas googule nag benn bokk yaakaar moom moo ci profité ndaxte ñaari post questeur yi nga xamante ni amoon nañ ko moom di benn bokk yaakaar moo ko récupéré ak yeneen post yi nga xamante ni waaye yeewi askan wi amoon nañ ko bés bi la jour na keroog samedi ginnaaw bi ñu doon amal session unique bu assemblée nationale amoon na ay arrêt ci liggéey yi nga xamante ni ñi ngi ko doon def te loolee dara waralu ko lu dul député Yewwi ak député Taxawu Sénégal ñoo doon xiiroo ngaayoo di werante journal bi ne yi moom soq na ni laafam ba deseetul doq yu bëri Birame Souleye Diop ak ay ñooñu députéem ñoom nag ñàkk na poste yu bëri benn Bokk Yaakaar jamono ji nag moo lal basangam foofe ca assemblée national ndax moo nekk majorité ci bureau yi enquête quotidien ni diggante Taxawu Sénégal ak Yewwi Askan Wi jeex na tàkk le quotidien ne mbir mi li ko indi moo di député Taxawu Sénégal ñëw lim seen i bureau leen seppi ba ñu set maanaam daal dañ leen zappé loolu nag moo métti ñi nga xamante ni moo di député taxaw Sénégal yi moo tax ñu daal di tekki seen ndomm tànk ca waa yeewi askan wi loolu moo waral nag groupe yeewi askan wi ñàkk nan ñeenti post ci bureau assemblée national poste yooyu nag waa benn Bokk Yaakaar di coalition président Macky Sall ñoom nag ñoo ko récupéré ba noppi gën dëgëral seen taxawaay xuloo bi am si diggante taxaw Sénégal ak waa yeewi askan wi waa Benno Bokk Yaakaar dañ cee bëgg loolu ndaxte ñoom ñoo ci bénéficié wu président groupe parlementaire bu yeewu askan wi ci biir libération ni moom li ko merloo moo di seen secret dépôt la ñu daal di war nee na loolee nag metti na ko loolu Abba Mbaye ci biir libération di ko tontu tontu ko tontu yu mel ne xamee moom nag li mu xamle moo di lii nga xamante ni moo am ci biir assemblée nationale ci diggante yeewi ak taxawu loolee nag irresponsabilité dëgg la vox populi ne lii moom règlement de compte la ndaxte vengeance dëgg la ginnaaw bi nga xamante ni nag xalifis yi ca booba di meeru Ndakaaru Barthélemy Diaz moom nag moo dàqoon premier vice Abbas Fall daal di koy génnee ca mairie bu Ndakaaru loole nag moo leen naqari ba bën ñëwee keroog samedi ci assemblée nationale ñoom it ñu daal di fayu loolu moo waral kii di Birame Souleye Diop di njiitu groupe parlementaire bu yeewi askan wi di ci bég loolu ba noppi di wax Abba ak ay ñoñom ñu daal muñ te dem jëndi galaas ndaxte ñoom ban ko defee metti woon na loolu ci ñoom dañ doon tëdd te duñu mën a nelaw Abba moom it di ko tontu ci biir journal bi naan ka lii moom yëfu soxor la waaye nag di ngeen xam mbir mi si kan lay gën a metti ak taxawu kan moo war moromam laaj woowu la journal bi samp waaye loolu nag mu ma jaaxal Cheikh Omar Anne ci biir Vox Populi ci jamono ji nga xamante ni waa taxawu ak waa yeewi ñoom ñu ngay xiiroog ngaayoo di xulo ak werante seen biir moom ma nga woon ca njum ginnaaw ab final bu buñ ko parene woon moom nag prox ndool na si tagg bu baax ki nga xamante ni moo di Amadou Ba di candidat wu Benno Bokk Yaakaar moom nag def na fa ab mobilisation bu rëy ba noppi di xam le ni foofee di njum mooy titre foncier wu Macky moom nag xam le ne ni dina def kattanam ba Amadou Ba nga xamante ni mooy candidat wu Macky Sall Sall daal di gagné élection présidentielle yi ni amul 25 février atum 2024 tribune yéen i kaay ca jamono jooju mu ne yeewi moom ñi ngi xiiroog ngaaye waaye nag ay candidat yu bëri la am ci élection présidentielle yi di ñëw nee na nag mbir mi dina tar lool si kujjee gi PDS moom fi mu toll nii puusul paasul xamuñ sax fu ñu teg seen tànk bañ leen dàqee ci nguur gi ba léegi l'évidence yéen i kaay ni diggante yeewi moom ak taxawu Sénégal jeex na tàkk loole nag histoire bu yàgg la jamono jooj nag Abdoulaye Dieye moom mi nga xamante ni mooy directeur AIBD di aéroport international Blaise Diagne moom ma ngay sànni karawaas foofee ca Thiès am na ab mobilisation bu rëy bi nga xamante ni amaloon nag fa moom nag li mu bëgg moo di am téeméer ak juróom fukki junni parrain moom sax li mu xam moo di pétition bi nga xamante defoon naka fan yële ñu génn nii dafa bëgg njiitu président Macky doon naat candidat ci élection présidentielle yi di ñëw nee na comme que Macky na ki nga xamante moo di Amadou Ba ñoom nag dañ ko élection présidentielle yi di ñëw génn na li nga xamante ni moo di ay armam tekk ba noppi fësal li nga xamante ni moo di programme am bilee l'observateur ñëwaat ak ñun ci diggante Macky Sall ak Mohamed Boun Abdallah Dionne di njiit jóoru ñoom te fësal ni dafa bëgg a doon candidat ci élection présidentielle yi di ñëw journal bi def enquête bu rëy ci soppeek nga xamante ni Mohamed Boun Abdallah Dionne def naka ci fan yi ñu génn laas yéene kaay ni groupe Yewwi ak groupe Yewwi ni groupe parlementaire Yewwi Askan Wi tas na jeex na tàkk Sénégal Cameroun kan moo war a gagné bataille psychologique bi lii nag Sàdd moo sampu laaj ñu wax ci sunu làmb yéen kaay Luc Nicolaï di promoteur bu mag bi décroché na combat bi nga xamante ñëpp moom la doon gént mu di diggante Ada Fass ak Gouye Gui nar nañ ko bëri ci atum 2024 ñu ngi leen fay ñoom ñaar nag juróom benn fukki million kenn ku ci nekk fanweeri million lan la fay ñu jeexal kaa xew-xew jamono ak l'observateur xale bu góor bi benn xaritam la jox junni pour m indil ka jaay seen bopp xarit bi nag daa di kay tëgg wëndeel lekk li nga xamante ni moo di junneem yooyu moom nag mu di mer bu